386 45 69 ña nga foofu ca Touba Daara Khoudous 9h ci suba la ubbi ba 20 ci ngoon. mun de argent muy wari joni joni ak Ria képp koo xam ne si ne bëgg nga crédit da jaay Orange ak Tigo ak Expresso waa kër Soxna Astu Jaxate daal di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassir mu yàgg fi loolu te wér ak waa Mint Service léppay baax. ñu seet si ki nga xam ne mooy Abdou Lahad Ndiaye médecin yi ñu gën koo xam si Abdou Lahad Ndiaye sopp Serigne. Abdou Lahad Mbacké sama cameraman soo bëggee xam li may def si biir fekk ma ci biir ndax mbir mi moom fii dong la. moom ñoo ngi yëngu si njaay njaay mooy njaayu mercerie yi. Mhm. loo xam ne lépp loo xam ne téer yi soxla na ko. Mhm. ba di ko ko def si seen i mu gën a rafet boo ñëwee fii da nga ko fi fekk. ndax Abdou Ahad Mbacke. borom daaree Kaamin. suñu lépp moom la ndax lépp moom na nga ko jëmale tuddaleel ko ko. Mhm. waaw fii nag boo ñëwee si diwaanu marché Guédé. foo laaj place bi bàyyi laaj ma siira après dinañ ko wan. Mhm. lii buket yi ngay gis nii. waaw lii si xeetu bees bees yi la boo ko. dañuy jaay gantir ba pare boo ñëwee ñu tegaloo ko. lii ah, mu waaw tegaloo kon yow maanaam dañ lay dañ la nit day ñëw jënd ba pare. waaw mu ko tegal ko. tegal ko ko waaye. kon askan wi yéen a ko déggandoo. waaw léegi waaw hmm. mooy bomb mooy bomb waaw mooy bomb mooy bomb ñun lépp lu bees loo xam ne nit ñi bëgg nañ ko rek dañ koy dem wuta ji pour jox leen ko quoi ñoom ñoo tax ñuy sonn ñun ñoo leen fi bàyyi wax dëgg yàlla maa bëgg seen bopp sa yàlla tax ñooñu mën nu ma leen a fay nag ma leen di sant di leen gërëm Touba diwaanu marché Guédé mhm. soo laa ci place bi bàyyi mercier dina la ko wan 78 105 21 14 bu nekk Tigo bi tamit 76 752 57 48 incha allah rabi boo ñu si wooyee da nga ñu jot te am na whatsapp tamit. ah am na allahu rabi lépp loo si bëgg tamit boo na ko envoyé dina la ko xoolal indi ko. waaw mën naa leen la ñu naan fil. fël fëlaale sànnee ko def la. sëñ Ndao sëñ Ndao. bilaay sëñ Ndao. xoolal yaa baadoola. bilaay baadoola yaa baadoola. bilaay baadoola. ku doon dox na taxaw ku taxawoon na toog ku doon nelaw na nga yeew sëñ Mbow nee mu njëkk nan daje kanam asalaamaaleykum déglu leen ma ku doon dox na taxaw ku taxawoon na toog ku doon wax na noppi sëñ Mbow nee na mu njëkk nan daje këram bu ngoonee ñu def ko nan ko daan def asalaamaaleykum leen ma ku doon dox na nga ku taxawoon na toog ku doon wax na nga noppi sëñ nee na teel a séntu mu njëkk de nan ñu def ko nan ko daan defee. asalaamaaleykum déglu leen ma sëñ Mbaw nee na. yàlla seen bu njëkk de nan daje jëlam ñu def ko nan ko daan defee fii kenn dafay wóoru sax naan ay weer bi feeñ weer bi feeñ lan la xamee ne weer bi feeñ la sax wóor quoi dañu bëgg a raay weer bi feeñ kenn wóoru xanaa bu ñaaw weer feeñ la wax dañoo wóor yéen ñii yëpp a yéen gis nga dañ leen a woo su leen mënee ñëw su leen mënee ngeen génn si bit gis ngeen maa leen maa leen maa leen man maa leen ëpp doole dégg ngeen ma maa leen wax maa leen laaj eh, eh, yow sa yaram man ci bi eh, yow sa yaram salaamaaleykum man yéen bu leen fonto yéen lan la yéen bu ngeen ma feeñ ngeen feeñ lu ne boobu nag moom ñu ngi waxal du ko ak yow. moom yow yow yow doo nit. déglu leen déglu leen sëñ boobu ngeen woowoon mi ngi ci biir léegi mu génn waxtaan ak yéen sëñ boobu bisimilah. dafay mel ne Fallou Mbadé ñoo mënut a. mel ne Fallou Mbadé du sama morom de dégg nga baax leen ko man du sama morom. déglu leen. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na leen ko waxee woon rek sëñ Ba nga nii bisimilah. Ah, jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. Mm-hmm. salaamaaleykum salaamaaleykum. waaw maa woote woon réunion bi ndax umpule woo leen ni tey jii nag la la la woon séenu bu njëkk. ba taxoon nag ma woo sëñ Dieng mii nga xam ne ndeysaan. Ah, moo di sama géwal. Ah, ma ñu joxoon ko rajo yi nag ne ko nag na nga na nga teel a yëg nag li nga xam ni nag moo di commission bi. da ngeen a yéex nag ba commission bi moom yër nañu weer bi ba gis nañu ko daje nañ fi ba jot nañoo gis weer bi kon nag na leen leer ni suba insha allah dañuy woor fii lañ ko doon séenoo gis nañu ko koor gi nag dama cee jël ay décision comme yama ci daan jël rawatina nag ren ren moom lay gën a métti ndax xam nga ni li xew ren amutoon daaw amutoon daaw jéeg nga dëgg de bi ci njëkk mooy lekk gi ak naan gi dañ koy wàññi bu ñu dogoo ba pare dinaa saytu loolu kër yi dinaa fi dugg di xool bu dog jotee li ñu war a lekk war a naan bi ci topp whatsapp dëgg la euh, day dakk ci koor gi na dakk kenn du whatsapp kenn du bët di bàyyi muy dem kooku jeex na euh, beneen bi ci topp xam nga noonu waaye nan waay waay ñu tuddati ah yow maam jaara waaw kay bàyyi bër moom kooku takk na dégg nga euh, bi xew euh, xam na ni garaam waaw euh, waaw kay xam na nan garaam moomu dakk na yow nag yow yow yow sëñ la eh. yow sant naa la gërëm naar ndax yow ku ñime koor la may sax ku ñime koor a ngi ah, ah, lekk gi ak naan gi dinaa ko éliminer ñu wàññi ko ndax am ngeen ni koor dangaa war a dangaa war a lekk lu yab dégg nga maam dinaa lu yam ndax jaamu yàlla gi ngay man di woyof toogaayu mbedd yi dakk na yow dinaa wax ak yow ndax xam nga ne ay kab yi nii du am ci koor gi li may waxatee xoola boppam bi mu fuddana fuddana fuddana fuddana ba mu wex tàll lii doo ko wooraale da koy wax ba mu set wécc wax ko léegi waaw dégg nga koor gi dañ ko sellal di di di wër dégg nga di di di di di jaay meewam lu mu bëccëg bëccëg mi ngi wër di jaay meew jërëjëf sant naa la yow eh, yow mii booy booy xës takkaay yi nga takk yëpp da nga koy tekki ba koor gi jeex da ko tekk dégg nga waaw say jaaro nopp yi sa yi nga takk sa loxo yëpp day da ba koor gi jeex ku fi ku fi whatsapp ku fi whatsapp billaay ku fi whatsapp <laughs> ah ku fi góor ñëpp laa yemale papa ak sinab waaw sinab ak yëpp tàkk xool ak moom maa ngi woote réunion ñëpp war a daje ci kër ah may muy fuddutu di di di di wax ay téléphone mu ñàkk ah. bu ma gisee mu mu mu wax fi sax bis bu ma gisee mu wax fi sax daa koy rek daa koy tuxal yóbbu ko belal waaw bu changé daal baax na bu sooy si wut li ma bëgg daal bu ko defee baax na bu ko defut nag ma yóbbu belal rek waaw bàyyi ko rek moom day day carré rek day carré rek ah day carré rek moom yàq nga dafa lu moom yéen yéen yéen yéen lan la lu tee ñëw tee wi la sama nelaw yëpp yàqu. yow xaalis sa papa woote loolu nag laa ne woon dina dinaa leen ko wax moo taxoon ma woo leen. sëñ bi nga yaw sant naa la jër a waaw kay jërë ngeen jëf man ngeen a kër ga ngeen waajal nag bu ko defee ñu naabi la euh, ngeen defar xëdd yi ndeysaan ñu daal di tàbbi nag ci première koo gi. suba moom ku ne xam na ni moom bés bu métti la nara doon moom. waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ay ca waay ay.